waaw comme sama gars yi ni ma leen ko waxee woon rek ah ngi nii toujours ah, ak yéen ci marche bi nga xamante moom laa leen doon wax sànq ah muy marche bu mag proteste boo xamante ni ñëpp a génn ah, tey ñu ngi fii ci downtown Providence ñëpp génn di daanaka màggal bés bi nga xamante ni moom lañu ñu jàppee woon ni mooy dakkal xeex esclavage ah, ci dernier esclave bi ñu relâché ñu signé décret bi nga xam ni loolu waratul am ah booba ak léegi mat na cent cinquante cinq ans ci ren tey nag di juin gars yi ko màggal fii te dégg ñu koy wax ni muy no justice maanaam di xeex justice nga xamante ni ñëpp dañ ciy boole yëpp ñëpp maase ci amul xàjj ak seen bu ko defee ñu nekk ni tuuti rek ñu ñëwaat ak yéen. gars yi ni ngeen ko gisee rek ah comme ni leen ko waxee woon rek ni ngi leen di toppalaatal événement bi di am nii ba léegi ah, marche bi nga xamante ni proteste bu mag la ah, ñoom ñu koy woowee juntent ah, sa policiers yi ñoom ñëpp taxaw ñoom ñoo gérer li nga xam ne mooy sécurité bi ba dara du déborder. ah ci kaw tamit xam nga gars yi marche ànd ak discipline ah teg ko si yoon jël liñ leen may ah bañ a bañ a bañ a bañ a jalgati yoon benn yoon waaw ah, moom ngeen gis nii mbooloo mu takkoo takkoo takku ah, am na ñoo xamante ni ñu ci ginnaaw waaw ah, di leen di leen di leen won rek li nga xamante ni moo xew muy xeex boo xamante ni àdduna sépp ñoo maase di ko xeex maanaam Black Lives Matters ah nga gis mag ñeeg ñëpp jóg ànd ci xeex bi. dañu gis ni injustice dafa bari trop fii ci biir Amérique ah bavure policière bi nga xamante ni mooy am chaque jour ah te du leen servir leçon benn yoon waaw nga gis rey ñu ñaaw yi nga xam ne moom rey euh, blague yi buñ ko xoolee rek xayma ko ci bu mujj bi nga xamante ni daanaka moo yëkkati ñëpp muy George Floyd nga xamante ni allah moom ngeen gis ni. waaw duñ leen bàyyil dara gars yi comme niñ leen ko waxee woon rek ñu leen fexe toppal ah affaire yi incha allah ba dara du leen ci rëcc. waaw lépp ci MTV kon sama gars yi léegi léegi ñu ñëwaat. waaw gars yi mu ngi noonu ah temps fort moment fort yaa ngi noonu xamante ni ah, exemple la war a doon ci àdduna yëpp ah, ñu ñu ñuul ñeeg ñu boo xoolee ñu weex ñee ci li ñuy jooy daanaka xeexal nit ku la ah, xeex ak injustice policière ak yooyu te ñi ay black lañu mais nga gis tey jii ñoom ñoom ñi nga xamante ni ñoom nit ñoom jàpp ci combat bi jàpp ci xeex ci xam ni ñëpp ay être humain lañu ñëpp ñoo war a yem droit ah gis ngeen ni mool bi Providence mool gaa yi taxaw ni policiers yi encadré ko journaliste yi ñëpp ñëpp yéen a ko gis yéen a ko dégg ñoom ñëpp xamante ni Sénégal moom war na ci jël leçon bu dara loo xamante ni njëriñu askan la njëriñu réew mi njëriñu ñëpp ah ngelawaay na ñëpp jógandoo ah xeexandoo ko ndax résultat yi bu ñëwee ñu ñëpp a koy bokk amul ma sàmb amul ma dem te ñu bàyyi politique bu bari bi ah, des nga gis ay mbir yu am yoo xamante ni teguñ ko fenn ci sa bakkan bu defee. lii mooy mën a jëmale réew àdduna kanam jëmale ko démocratie kon vraiment mi ngi noonu moom lañ leen andiloon tey gaa yaa ngi nii ba tey ci marché fii ci downtown Rhode Island kon sama gaa yi lii lañ leen andi woon seen correspondant Sane ah, Sanex Design ah, lépp mi ngi xewee ci MTV ah, MTV la chaîne médinoise MTV HD mooy suñu télé daa ngeen jëf sama gars yi kon xam naa ko ci fan yi ak jàmm rek incha allah ñu andilaatal leen yeneen yeneen ay information yoo xamante ni macha allah ngeen gis ko nii ah. waaw kon daa ngeen jëf sama gars yi ciao ciao bye bye.